comme ñun ay artisans lañu bokk ci euh, euh, membre nekk ay membre yoo xam ne nii dañu bokk ci chambre de métier mais yàlla dogal suñu ay kilifa nekk ay membre éli yu fa nekk ñoom it feeñal nañ seen engagement wax fan lañ bokk ak kan lañ bëgg a jàppale. yàlla dogal chambre de métier ak chambre de commerce benn chambre consulaire la Sénégal ñëpp xam nañ loolu chambre de commerce moo jur chambre de métier. kon tuñ bu ñu demee ba nga xamante ne bii am na membre élu yu jël seen engagement ne dañuy jàppale diw ci élection locale libre nañ ci kon yaakaar naa ñun artisans yi fi nekk libre nañ ci euh, wax suñ position ci président Serigne boobu ne moom lañu àndal ay différents corps de métier ñu ngi fi nag euh, ndax euh, soudeur métal yi ñu ngi fi seen représentant ñu ngi fi menuisier bois yi aussi seen représentant ñu ngi fi cordonnier yi seen représentant ñu ngi fi aussi ñu ngi fi ñiy def bâtiment seen représentant ñu ngi fi kon bari tey Euh, di wax ne président Serigne Boum nag ci woo bi mu ñu woo ci ànd nawle ci lañ ko seet si war ci ànd ak moom ci ànd nawle di ñaan suñu borom dimbali ñu bañ def ko maire ci kàttanu yàlla ñun artisan yëpp ànd ak moom mu defar Kaolack ndax loolu lañ yaakaar ci Kaolack. ku la jox ndékki nag bu la diggee añ da ngay dem tëdd nelaw xaar añ bi président Serigne ñun bi ñu nekkee ndaw ba léegi ñun ak moom. keneen ku engagé wu muy beneen artisan muy artisan bu retraité képp ku engagé wu ànd ak leneen ñun ànduñoo ak keneen président Serigne lañ àndal ndax moom la ñu yaakaar ci suñu dëkk mu defaral ñu suñu dëkk defaral ñu artisanat Kaolack. ndax nee nañ dëkk bu yàqoo Sénégal bu yàqoo buy defaru ci Kaolack lay defaroo te yaakaar nañ sëriñ boobu ci defaru defaru gi te bu ñu ko joxee mairie Kaolack dina defar Kaolack defar Sénégal ndax Sénégal kat dafa yàqu te artisanat mooy dëkk bu yàqu artisanat bi la ñu tegul fenn te fii nii tey mbaar mii ñu toog lépp artisan la mbaar mi menuisier métallique yi chaise yi menuisier bois yi lampe yi ñu tiim électricien yi jotaay bi ni mu taaroo tailleur yeeg coiffe kon barkal la dañu dañuy tënk suñu wax foofu wanaat président Serigne ne ko artisan mbokkum ñëpp ëmb corps de corps de yëpp te kenn ku retraité nekk ci kuy door a door moo ci nekk ay xale yu ndaw ñoo ci nekk ki ci gën a mag amagul 45 ans kon ñoo tënk suñu bopp ci ndaje mi di feddali sunu kóllëre rek président Serigne Mboup ànd ak moom nag di ko gunge ba ca mairie ba. Euh, soxna Anta wax na ko léegi ñi ma jiitu wax nañ ko léegi réew mu baax ci àdduna artisans yi ñoo ko baaxal. donc ñun artisans yi àdduna bi yëpp a ñu soxla waaye nag.

benn bulletin unique lañ doon woote di ko jox doomu aadama di ko jox moom rek lañ ko daan jox cër moom mënul weesu loolu. Hmm. di ko joxe cër di ko joxe cër ba mu retraité ba mu retraité nag. ne léegi loolu bàyyi na ko ci chambre de métier moo tax keneen xalaat pour bokk cër yaakaar naa mënut a weesu foofu kon su weesoo li des nag wax dëgg yàlla ñun ñoo ko moom at suñu bopp ndax li may yëg am na ñeneen ñoo xam ne yëguñ ko la leen arrangé wu ñu sama koñ bee la fa ne la may dund lu lampadaire euh, noir blanc yi li muy am musu jaar sama dëddu koñ ego musu jaar sama dëddu koñ chaque 45 jours dinaa bii de est-ce que ñoom yëg nañ ko est-ce ñun artisan social bi ñuy wax ñun kuy ñëw ku ñuy limal naan day def social ñun nga jiy fekk ndax ñun koñ ba ñu ne chaque jour dinañ joxe ay kilo ceeb ay diwlin dëkk kook ñoom ñun xaaruñ xaaruñ campagne ba campagne